asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi KN TV mbokki internet yi ni ngeen amee baax ñu topp à chaque fois ni ngeen ko xamee rek fan yëpp nag ñu ngi ci li nga moo di tey ba tey ñu ngi fii si maquette bi ba tey ci Tëngéej la bokk rek ñu ñëw daal di fekk si suñu mbokku taalibe yi ñuy daal di def li nga xamante ni moo di seen safar fas yéenee buñ fi jógee rek daal di euh, jubali ji Touba incha allahu rabbi ñuy ñaan yàlla nag ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim waaye génn ci li nga xamante ni moo di alhamdulilahi rabbi alamina topp leen ñu rek ñu daal leen di dugg ci mbokku taalibe yi daal leen fii jëlal li nga xamante ni moo waral seen safar gi tey. li nga xamante ni moo di safar gi ba ngeen ko dalee tàmbali si ñaata at la toll wala da am loo leen di sas ni ñi wala lu waay am indi rek ngeen mën a safar. daayira bi mooy xidmatu Lamp Fall lañ ko tuddee xidma mooy mooy kiy liggéey xidma mooy ñay liggéey te yaakaar naa ne lii boo liggéey mënoo ko te fii boo fi ñëwee xam ne ñun ay Baay Fall lañu. bokk ñoom nag genre Baye Fall yi nga xam ne boo leen xoolee xam nga mu am na mu mel waaw non Baye foo sax waxuma ko yow yaa wax loolu waaye ñun boo boo ñu xoolee xam ne ñun alali Seex Ibra lañu am déet maanaam lii bii mooy juróom-ñeenti at neuf ans yoo xam ne nii daayira bi nag dañ ci am daayira bi nag ñu tudde ko xidmatu Lamp Fall maanaam dañu wax góor yàlla yëpp ñu ne leen at mi yëpp fukki junni la cinquante mille la sase léegi maak sama jëwrin Baye Seex ñun ñooy def ajima bu ne ñu yombalal ko Baay Faal yi ajjuma bu nekk ñu dox laaj ku ci bokk nga joxe 1000 francs xam nga mooy gën a yomb mu ne këtt na jonn nga yëkkati fukki junni ak fa màggal gi toll itam mais léegi bu leen ko yombalee pour liggéey bi amee tànk di dox pour liggéey bi yomb léegi dañ leen ko defal ajjuma bu ci jot ñun ñu jóg bàyyi suñu liggéey wër leen ñoom ñëpp yor suñu kay yor suñu bit ku ci dugal 1000 francs ñu bind loola la ñuy dajale nag ba mu toll nii tey waaw ñu def ko ca safar ga faal barke maam Seeraay ma faal macha allah ñu lay sant di la gërëm waaye tey nag KN TV dafa génn muy tele Tëngéej bi tele bi nga xamante ni kenn dootu ko euh, laam-laame ci bi nga xamante ni moo di banlieue bi loo leen di wax. ñun lii télé bi ñun lii la ñuy sagoo moom lañuy ñuy ndax moom la ñu am ñun moom lañu ñu lii mooy suñu fierté ndax ñun ay doomu Tëngéej la ñu. bi ki ko moom tele bi nekk bu ki ko moom bu dëkku Tëngéej télé bi di nekk ci digg Tëngéej kon lii suñu fierté la. télé bu yàlla sàkk bii moo ñu ko gënal barke maam Cheikh Ibrahima Fall. soxna si nuyu naa la. maa ngi lay fay. ñu ngi ñëw tey si maquette Tëngéej bi fekk leen fii nga xamante ni moo di euh, ci waañ bi yéen yor waañ bi daanaka ñu daal di bëgg a waxtaan a yéen rek ñu xamal ñu lan moo waral seen cant gi ak yéen a ngi tollu ren jii si ñaata at. waaw maa ngi lay fay bu baax di sant di gërëm sëriñ Touba di nuyu mbokk taalibe yi ma ko bokkal yépp di jéggalu nag ci baat bi ma xam ni neexul waaye lii moom mën nañu mooy neuvième édition ci ren di ñaan yàlla mu doon téeméeri at ñu bokkok sëñ Mountakha lii nag dañu koo sasoon rek ci yëfi murit comme ni ñu ko sëñ Sidi Mokhtar digalee woon ginnaaw boobaak léegi nag Serigne Touba defal ñu ci tawféex ba liñ naan amul tànki ginnaaw tànki kanam laam booba léegi ñu ngi si am tànki kanam bu baax a baax a baax waaye nag di sant mbokki taalibe yi nga xam ni saa bu ñu tegee suñu mbane yi ñu ànd ko ñun ba mu jeex tàkk ak tawféex ak xol bu sedd guy dañuy ñaan nag lépp loo xamante si lu si waaye tabal sa ñaq la loo man ren ñaan na nga man déwén lu ko ëpp ak yéene bépp boo xamante si moom nga si amoon en tout cas ñun ñi nga xam ni moom ñoo jëwriñ ñi suñu xol sedd na guy si ñoom yàlla nañ koy yàgga teewe nag ay déwén déwén alhamdulilah ab daayira la wala même bu nekkee daayira tamit yéen da ngeen di sas nit ñi ku nekk am looy indi wala lu waay indi rek baax na waa daayira la ndax daayira bi surtout maam Cheikh Ibrahima Fall moom moo ñu ko tuddee doon xidmatul lamp Fall muy murit bi liggéey jëfal Serigne Touba Cheikh Fall moo tax sax ñu def ko noir et blanc muy Serigne Touba ak Cheikh Fall daayira la am na sas waaye am na barkeelu ngir jëmi Serigne Touba Cheikh Fall lu waaye am nga indi noonu lañ koy kiiwee sas nag am na ci waaye doon loo xamante si lu ñu teg protection kenn la dañ ko def loo xam ne rek pour jaayante la ak bépp jullit boo xamante si bëgg nga see def sa ñax ba pare daayira bi daayira la mais am na murit am na tiijaan am na xaadir am na laayeen maanaam daal comme li Serigne Touba waxoon du laahi mooy jullit bi jëm ci yàlla waaw moom mooy daayira bi ñëpp ngi ci amul xaj ak seen jullit gàttal da ngeen a ubbi seeni bunt buntu ku bëgg rek ne ñëw daa dee bokk ndax Cheikhul Khadim daa boole ñëpp. waaw noonu lañ ko defee waaw ko koo xamante si rek am nga yëg-yëg ci Serigne Touba ak liggéeyal yonentam ba rek moom ngoo nañ ñëpp ci daayira bi amuñu ci xàjj ak seen wax dëgg yàlla bañ ko commencé ba tey noonu lañ ko commencé te noonu lañ ko ñaan yàlla yeggali ba suñuy sët bu ñu ci mënee wallu tamit ñu walluñu ci rek. waaw lay jaajëfal yow mi nga xamante ni yaa nekk ci waañ bi di maanaam di jëwri ñu jigéen ñi suñu télé bi génnoon tey di leen euh, seet si mu di KN TV loo leen di wax. di leen jaajëfal di rafetlu liggéey bi ngeen yàgg fee ñëw rek ñu yàgg koo teewee merci beaucoup jërëjëf. salaamaaleykum man nag li ma ci li ciy sànni daanaka ay pàcc yu ndaw la rek muy daayira bi dafa dafa defar marché bi parce que souvent boobu ma sànni dégg magat man ñu bëree dañuy jàpp ne man Mane bandi la wala Maguette Mane koo xamante ni tekkiwul dara comprendre fi ma waxee donc ay responsable ñoo fi nekk ay responsable ñoo fi nekk yoo xamante ni dañuy maanaam ñu bari boo nee Maguette rek dañuy jàpp ne kii tekkiwul dara ñu ñi ñëpp bi ñu takk ay soxna wóoluwu ñooñu comprendre parce que dañuy jàpp ne boo fa nekkee rek waaw bandi wala nangam comprendre mais tey ñi joxoon ay soxna yëpp ñu ngi ñuy naan ndax soxlawu leen ma dolli comprendre tey magat man tey sox ku mu ku takk ko sa doom ku mu takk sa doom dangay ñaan yàlla dolli ko ndax benn dafa mën a yor jigéen comprendre dafa mën a yor jigéen yërëm ko yaa ngi comprendre fi mu waxee maanaam day am yërmande day mën a yaatal magat du daara lu dul ñëw daan sa doole rek la fii marché noir la waaw mooy marché noir très bien léegi ñu bari xamuñu ko ne si Tëngéej am na gox boo xam boo fa dëkkee rek ni magat ñëpp dañuy ragal ñëpp dañuy ragal ni non mais ñun ñii fexe nañ ba dindi ko fexe nañ ba dindi ko parce que. seen bésu tay bi wane na ko. waaw nañ ba dindi parce que ñun saa woo ñëwee même budul budul sawar boo ñëwee suñu comportement yi boo xoolee rek mu lu baree baree bari dindi nañ ko ci magat wan nañ leen ni affaire yi du da ngay takk du da ngay tilim war nga mën a sol jees na ñëw liggéey si. war nga mën a sol yére bu riis ñëw liggéey parce que affaire am noble la ñun ay téléphone ay noble la ay téléphone la ñuy jaay tey daara bi ngay gis ne ay millions la ñuy la ñuy dagante ay millions la ñuy dagante wu mécanicien yi fi nekk yëpp ay ay ay lañ man loolu rek laa ciy sànni benn bi mooy télé bii sen seen site bii waaw nu mu Kër Ndaanaan TV gis nga liggéey Sëñ Tuubaa ku ci feeñ dootoo nëbbatu ba ilaa yomi diini te yéen ñi nga xam yéen a ciy liggéey ku ci nekk dina yokk ba yokk ci kàttanu yàlla ak mbaaxam parce que Sëñ Tuubaa ma mel noonu Sëñ Tuubaa mel noonu loo bëgg mu jëm kanam rek ñëwal buruxlu ci dugal ci Sëñ boo ko ci dugalee rek day barkel kon yàlla na ci yàlla def barke suñ borom sot ci xéewal ba ba fi ñuy dégg tale yu mag yi wala site yu mag yi ñu dégg ko fa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. ñu ngi lu am solo make du ay woyu rek a fi nekk tur bi rek moo daa dee xaw a doy waar waaye ay dóor waar ñoo fi nekk tey nag seen bésu tey bii wane na ko ndax koo fi gis rek responsable nga. ma am lu ma ci sànni ci loolu soxna si ci télé bi yéenay télé bi fi njëkk a ñëw bañ dalee def safar ñu ngi koy def mais yéenay télé bi fi njëkk a ñëw comme ni ko sëñ Koso waxee nii euh, dañ leen ñaanal daal comme euh, ñi ko njëkk a jébal sëñ ka njëkk si sibal sëñ gis nga nu mu mel ba ka ci topp ak ak ak ka njëkk ci armée de yàlla na télé mel noonu waaw <laughs> yàlla jërëjëf. Euh, di ñëpp di nuyu waa télé bi muy Ndaanaan TV di leen siyaar di leen bëggee bu baax a baax di rafetlu seen teewaay ci bés bi bés bi nag mooy suñu neuvième édition depuis 2016 ñu ngi safar fii ci marché bi lii mooy suñu neuvième édition yaakaar naa safar gi nag dafa am histoire boo xamante ne xañ na. buñ demoon ba ci kanam mënu leen ko nettali mais comme yàlla dogal na instant bi toll ni jot amut moo waa ñu doog ñu tënk li ñuy tënk nag mooy di gërëm ñëpp di leen sant di gërëm jëwriñ di gërëm euh, population rufisquoise bi bi nga xamante ne tey opportunité bi ñu am mooy togg jox leen ñu ñami ñu lekk parce que mën nañ koo togg te kenn du ko lekk mais ñoom la ñuy gërëm ñun ndax ñoom ñoo soxla suñuy ñam ñoom ñoo soxla suñuy safar ndax safar ci su ne rek dañ koy yàkkamti bés bi te bés bi bu ñëwee tamit lépp luñ ci war rek dañ ko ci def di ñaan yàlla taxawuñu taxawuñu koy taxawal taxaw waa télé bi taxaw euh, mboolem doomu Tëngéej daal incha allahu rabi. Cheikhul Khadim dara du day dara am taxawaaluwul macha allah boo leen di wootee dañ leen di wuy si soxna si nga sànni ci sa kàddu. waaw rafet na lépp rafet na lépp Serigne Touba la ak maam Cheikh Rafal moo ñu tax a fanaan fanaan naat yendu kenn du moom barki Serigne Touba suñu góor yi tamit kenn du ñoom kullim da barke yiir nañu gunge nañ ñu xam teg nañ suñu place barke Serigne Touba Mbacke li suñu mbokkum taalibe moo ga moo moo moo wàññeeku woon ba tey ji ñu def ko safar ba tey ji ñu ngi koy màggal ci barke Seydina Muhammad te day day gën a yokku nag day gën a yokku te yéen ñi fi ñëwit day gën a yokku barke Yonent bi day gën a yokku Serigne Touba ak Serapha rek amul tànki ginnaaw tànki kanam rek ci barke Seydina Muhammad lépp luñ fi wax. suñu borom maanaam mu baax suñu borom la lépp loo xam ne nag dëng na ñun ñii la ñu ngi gërëm daal di leen sant di leen gërëm yéen ñi bàyyi seen liggéey bàyyi seen yitte ñëw fekk suñu fii ñuy ñu màggal Serigne Touba ak Seyra Fall lépp nag lu ko waral suñu góor yi nag ñu mënuñu dara ñun mënuñu dara suñu fukki dërëm suñu ñaar fukki mënu dara mais bu loon woon ñoom ku lim ne da ngay juum jëwriñ Bammaas jëwriñ Seex ñëpp daal ñëpp ngi ci biir jëwriñ Faada ñëpp ñëpp ngi ci biir yal suñu borom fay ci barki Seydina Mouhamed yokk ba yëg ko rek yéen yokk ba yëg bu déwénee barki Serigne Touba da ngeen yokk ba yëg ko billaahi li ngeen am ay télé ak i rajo rajo maa leen wax li ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. parce que de macha allah daal lépp doy na macha allah yàlla nañu ko teewee ay ay at yi at te ñi ko organiser tamit yàlla may leen kattan ba ñu yàgg koo organiser macha allah ay xale yi baax lañu ñu dongoo joxe yàlla nañ ko teewee daal ay at yu bari macha allah ñu fekkee ay at yu at. loo xam ci bés bi nga xamante ni tamit moo di bésu safar gi mu di 18 safar gi donte lii moom ni ñi dañ siy barkeel waaye ca Touba ji nga xamante ni Cheikhul moo fa wootee looy ñaax suñu mbokk yi nga fas yéene takk jóg. xanaa ñu góor góorgóorlu rek ku ci dem rek fas yéene takk rek nekk ci liggéey ba rek lu sëñ Touba santaane rek ñu def ko loolu rek laa leen di dolli. suñu doom yi di daw ci tali bi wala suñu mag yi mu di chauffeur yi ñu dara waxal de. xanaa ñu dawal ndànk rek nag daw ndànk dal ndànk ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm wàññi paas yi tamit nag yàlla ñu jàpp ci lépp nag combat bi. ñu ngi lay jaajëfal الدين من سماك محمد يقول عبد ñoo leen ko def nañ ko dugg nañ ci li nga xamante ni moo di daayira bi ñu fekk tey fii si maquette bi ñuy def seen li xamante ni moo di safar di barkeelu ci bésub cheikhul xadim bi di ajuma bii di jëm incha allahu rabbi dégg ngeen seen kàddu dégg ngeen li tax ñu waral seen safar gi nga xamante ne nee nañ seen mbokkum taalibe moo daade wàññeeku woon sëriñ bi ñëw fi nag daal leen di sosol li nga xamante ni moo di daayira bi muy ah, liggéey jëm ca borom mu ngi noonu dégg ngeen góor ñi dégg ngeen jigéen ñi dégg ngeen jawri ñi dégg ngeen jàngkat yi mbokk yi dañ leen di jox di daje beneen numéro si reportage bu ba tey si safaru Cheikhul Khadim gi ñu leen di wax nag yéen ñi ne ci tali bi daw leen ndànk dal ndànk te surtout ngeen wàññi paas yi def ko ci li nga xamante moo di addu yey borom Touba ba beneen